jaa ngeen jëf mbokk internetu Dakaractu ñu ngi amaat mbégte di leen dalalaat ci seen rubrique découverte. assemblée nationale pencum ndawum réew mi mi ngi nekk fële nga xam Dakar ci centre ville bi Mom nak ñu ko inauguré ci le 22 novembre 1956 euh, boobu nak mi ngi le grand conseiller de l'Afrique occidentale française maanaam AOF ba daanaka ci le 4 avril 1959 ci la dal nek assemblée législative bu fédération bu Mali muy dox nak ba loi 60 44 bu 20 août 1960 dal di kay taxawal mu dal di euh, bot ñi nga xamanteni ni moo ndawu penc rew mi. ñi ko jotta jité ñep ñi ngi tollu ci fukk ak ñaar bo len di lim. Euh, euh, premier président bu njëkk euh, danaka ñu bari xam nañ ko parce que dañ Lamine 1960 1968 euh, mu top ci itam Amadou 1968 1983 après mom Habib cham 1983 1984. 1984 1988 1988 1993 ki nga Aziz Ndaw 1993 2001 c'est la Cheikh Abdul Khadr Sissoko Daldinho. 2001 2002 Youssou Diagne 2002 2007 Pape Diop 2007 2008 l'ancien président Macky Sall 2008 2012 Mamadou Seck 2012 2022 Moustapha Niass 2022 ba 2024 ki nga xamanteni modi Amadou mam Diop daldi kay jité assemblée nak légui danaka 165 députés lañ fa mëna a lim moonte bu njëkk ba euh, nekkul won nombre bo xamné mom lañu déparé ndax euh, lilé benn référendum euh, constitutionnel bu ñu voté won ci 2016 mo waraloon mu yok ba egg si 165 bu assemblée 80 députés la tambalé ci atum 1960 1978 euh, mu 100 1983 euh, mu 120 1998 euh, mu 140 2001 mu 120 2007 150 ba 2016 lay 165 15 yo à ni ñom ñoy représentés, ñi diaspora député yi nag seen wareef lenn la mooy euh, teewal Sénégal ci euh, bëgg-bëgg ak lu guur gi ndam rek ngir toxal ci suñu dëkk mu am nag ñaari rôle benn bi mooy rôle législatif maanaam voté ay loi euh, lépp loo xam ne ni gouvernement bi namm na ko tey jàpp ni daf ko war a amal ngir doxal suñu réew ñoom assemblée yi lañ koy jébbal euh, député yi daal di ci waxtaanee xool ko sayti ko ba ku nekk rek joxe ci sa avis ñu doog a koy voté euh, beneen bi mooy contrôle gouvernemental député yu am na makkaama maanaam xool nguur gi ni muy euh, doxalee mu laaj ko ci am ay laaj yu muy yëkkati jëmale ko ci moom ngir rek mu leeral ko ndax ni muy yoree réew mi doxalin yi muy def ak lépp loo xamante ne nii mi ngi koy amal. noonu nag euh, moom député bi amna makama déposé maanaam motion de censure euh, motion de censure du lenn lu dul euh, benn doole joo xam ne ñoom am nañ ko ngir rek mëna daanel nguur ci histoire nak mën nañ jàpp ni amna ñent motion de censure yu ñu mëna lim bi ci njëkk moy ci atum 1998 ben motion de censure bu ñu déposé won contre le premier ministre mu di Mamadou Lamine Loum par euh, le groupe parlementaire démocratie et liberté waye bobu nak dañ ko muju rejeté parce que majorité bi euh, euh, manam ñi nga xamanteni ni ñoo ëpp ci assemblée boobule nekkul won xujje gi mais ñu nekk ci nguur gi wa parti socialiste té ñom nak buñu ñu rek dañuy daal rejeter rejeté loi bobu beneen bi moy ci atum 2002 ki nga xamanteni ni le député Moussa Tine tekkoon euh, jëf jël dafa déposé won motion de censure contre le premier ministre Mam Major Boy. Voyez, motion de censure bobu mujjul won antu itam ndax tay majorité bi euh, euh, ñiko ko moy wa PDS loolu waral ñi rejeté ko Visite euh, si topp nag mooy 2012 euh, euh, opposition bi dafa déposé une motion de censure di réclamer démission premier ministre Abdoul Mbaye ci atum 2023 bi nak Pastef avant ñoo jël nguur gi déposé won nañ motion de censure ku ko déposé du kenn ku dul Birame contre ki nga xamante modi Amadou Ba ndax ay juuj ñay yum ko doon japp tay doon réclamer ni nguur gi wul sax nek ci pouvoir bi bu mujj ci atum 2024 bi nga xamanteni Abdou Mbow moko ko won ndax ni euh, gouvernement bu Sonko bi euh, li wax ak li def bokul ba mu ni daf ko assemblée nationale nak Wade moko ko dissoudre ci atum 2001 bobak legui nak ken musuko tas ba ci bésub le 12 euh, novembre 2024 ci le président Bassirou Diomaye Faye daal di koy tas donte sax mom waxoon na date bo xamanteni ni Ousmane Sonko war ko def déclaration de politique générale waaye euh, doodu ko meuna def ndax tey assemblée bi mën nañ japp ni euh, président tas nako ndax ndaxte japp na ni député yi manam dañ fa togal parti mais togaluñ fa réewum Sénégal.